ku bëgg lu baax la bu li mu nekk rekk ci sëriñ bi doyal na jullit yëpp doyal na murit yëpp doyal na taalibe yëpp taxawaayam ci liggéeyam bi mu ànd ak sëriñ bi di ko liggéey muy ku baax ku yàgg baax ku yàgg jàpp